fi jaare euh, tàmbali waxtaan bi ak yow tey waroon leen fekk bien sûr ci seen quatrième jour euh, jëm ci campagne bi euh, nag mujjul am ndax dàq nañu élection yi ba fukki fan ak juróom ci weerub décembre atum 2024 tey jii ni li waral dàq boobu jëm na bien sûr li sooke coow loolu lépp mu jëm ci wàllum corruption bi ñuy wax ca conseil constitutionnel ak lu soxal mbirum Rose Wardini naka nga jàngatee tey argument yooyu nga xam teg nañu ko ba dàq élection yi fukki fan ak juróom ci weerub décembre je euh, pense que dàq boobu. Mhm. dëggul ci yoon. Mhm. ndax nit ki lo xamanté xamanté droit nga xamné euh décision bu ko conseil constitutionnel jëlee. Mhm. te yow li ngay euh, voté moom mën na ko dindi. yow nga bëgg a dindi na def. je pense que. da ngay jalgati. da ngay jalgati comme li may wax rek dama ne euh, maa ngi nuyu ñëpp di leen di leen di leen remercier. Mhm. di ndokkeel. Euh, dàq boobu euh, tegul ci yoon ndax lu nit xamadi xamadi droit war nga xam ne conseil constitutionnel su jëlee dogal assemblée mënu ko dindi ñaareel ba amul benn élection. bu massa am Sénégal bu amul contestation élection maire yi ñu joggé bari na ay liste yuñ invalidé ñom ñu dem tribunal euh, tribunal dogal ci ñu appliqué élection présidentielle yele passé sax amon na ay contestation élection législative y na ay contestation pourquoi élection yi am benn contestation mhm. ñu ne ndax yaakaar naa bu amee contestation. mbiru euh, euh, garab justice moo ko war a àtte. mais assemblée mun ko àtte. kon nag leneen la ki nekk li ci nekk mooy euh, li nga xam ne ni président de la république daf ko waxoon ñëpp am ci yaakaar ñëpp di ko félicité je pense que ba mu koy wax daf ko rëcc mu bëggee dellu gannaaw et man tamit li ma gëm mooy dañuy wax 15 décembre. mais 15 décembre élection du am lu ma leer la waaw. ci ci kaw calendrier ci euh, matuwaay moo dul moo dul jàppandi wala lan moo tax xam nga sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne nit ki euh, waxi démbam bu nuroog jëfi tayam nit la waaye bu fekkee waxi démb ak sa waxi tey nuroowul lan lañ mën a gëm mënuma laa ñëw wax dara mu deñ ma waxaat la mu deñ nga bëgg ma waxaat ma di ko gëm je pense que li ñu war a fexe ñun ñëpp rek élection yi bañ a génn le vingt cinq février parce que loolu buñ ko fi bàyyee ah mais porte ouverte la pour tout le monde. donc c' est loolu la ñuy parce que gis naa ngay partenaire au plan international xam naa ni woo nañ la sax ne lan moo xew seen réew mi États-Unis ñu ngi àdd si ñun France ñu ngay àdd si ñun réew moo dem jamono ji euh, ci àdduna. ñu ngi àddu si ñun naan ñu euh, yéen Sénégal dañ leen jàppoon comme vitrine démocratie jàpp leen comme bu euh, buñ doon wax ne ni euh, îlot démocratie ndax la xew yépp ci Afrique waaye tey dugg ngeen ci même circuit que yeneen i réew yi nga xam ni am na coup d'état soit militaire wala institutionnel parce que jàpp nañu bii ni coup d'état institutionnel la est-ce que say partenaires tey tiituñu ci réewum Sénégal. non xam nga di fekk ñi dëkk ci réew mi ñooy tiit. waxoon dama laaj ngi nekk bitim réew réew ni nga koy xamee mooy ña dëkk ci réew ma bu seen xelee dal ñi ci bitim réew dana dal mais baromètre bi ëpp doole mooy baromètre bi nekk réew mi tey Sénégal euh, ko fi doon bëgg a ñëw yaa ngi tiit bon. Euh, tiit tiit même les banques yi tout ak mm-hmm. ñëpp ngi tiit mais man li may wax mooy Sénégal vraiment nit ñu pacifiste lañ je pense que lii am fi tey wuute wuute ak la Trump defoon. ñu gañe ko mu ne du dem mais Amérique loolu mooy wane ne am na ay institution yu dëgër dañ ko fa jëlee dañ ko forcer pour mu dem je pense que tey jii euh, la justice ñaari ramp lañ ama euh, justice ak notre armée et no et nos gendarmeries ñooñu lañ am ñu xool lan la yoon wax ñu doxal ko bon l'assemblée moom xam ngeen la la la l'assemblée moom euh, débat politique la moom politique la politique la vraiment euh, moom peuple bi mënuñu compte lu bari ci moom. voilà ndax bam fi fi nekkee léegi du ci moom rek mais ba ci ab Diouf ak yëpp da ngay fàttaliku xam nga lu tax euh, kilifa yi ñu leen di ñu leen di déglu yéen ngi fàttaliku benn bon benn ci histoire yi euh, sëñ Fa sëriñ Fallou mi mi bis borom bis bi tey dafa am comme waxoon Senghor ne ko te def ko député. Senghor na ko sëriñ bi kii mënul nekk député ndax jàngul moo woo waa ji ba mu ñëw Senghor toog mu ne ko tàccul ma gis waa ji tàcc mu ne ko waaw mën naa tàcc tàcc rek ngeen fay def waaw je pense que boobu ba léegi te loolu waxu waxu waxu kilifa la waxu waxu wàlliyu la et je pense que ba léegi daanaka loolu rek lañ fay def je pense que looloo tax ñun sax ci suñ programme ñun dañu fexe ba nga xam ne loolu mën a daj ndax assemblée waratul nekk euh, lié uniquement pour les partis euh, en ni ngi encouragé bu bari ay Euh, société civile wala ay candidats indépendants mën a dem te liste national dañ nit ñi ñu élire leen ci département bi leen élire avec cinquante et pour cent nga xam ne am nga légitimité mun waaw bu légitimité comme ni mu amee France légitimité boobu boo ko amee hmm. député yi ñu ñu fay leen bu baax a baax jox leen ay moyen ak encadrement boo xam ne ni da nga mën a dus da nga mën a liggéey ci loo xam ne nii Euh, du du du du doo jalgati yëfu réew mi daal parce que ki nga xam ne nii moom moo war a teg muy jalgati du du du neex daal. Macky Sall woote dialogue waxtaan juste après li nga xam jot na fa xew est-ce que pare nga bu fekk ko ci dialogue dialogue boobu mais aussi est que yaakaar nga ni buñ ci demee dina mën a tax ñu jëm ci élection yu jaax yoon. moo xam nga ñun du ñuy du ñuy vraiment du ñuy politicien c'est pas que politique du politique wu dama dama dénigrer politique ndax politique bu fekkee nañ ko waxe lañ ko defee amul liggéey bu ko gëna noble ndax euh, yéen ñepp xam ngeen né Thierno Souleymane Baal euh, biñ joggé Pire jang ba paré té ci daara gi dañ jang dañu jog dem euh, fondé benn révolution en 1776 mu jitu révolution français kon xam nga ne lolu lolu ñun bañu nek politicien mais su fekkee da ngay dugg fo xamné yow ni ngay réfléchir ak ñoom ni ngay réfléchir bokkuñ bon da ngeen di bàyyi ñu dialogue ba noppi rek dialogue moom toujours yaakaar naa euh, ci dafa baax dialogue parce que alquran li mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko wa shaawirum fil amri waaye dana ko fa izaa azamta fatawakkal ala Allah na diisoo mais la fin prenez une décision je pense que président Macky Sall mënu fi nekk dialogue dialogue dialogue euh, dialogue dialogue dialogue boo xam ne nii même lañ fay appliquer. dañ koy appliquer ba pare man naa dañ lii ñu appliquer ci parrainage bi mais dañ ko discuter ci dialogue ba appliquer ko léegi nag kan moom moo la mën a wax ne leen na euh, mën nañ teg benn texte boo xam ne du am werante ah, ah, ah am na alxuraan fi yàlla di wax ne euh, fii ayat mustabaatun hunna umul mu ne am na ay yoo xam ne nii leer na am na ay yoo xam ne nii dafa xaw a confus waaye nag ñi nga xam ne nii dañoo bëgg a yàq dañuy jël aaya yooyu ko pour jaxase xelu nit ñi je pense que loi boo mën a jël ci àdduna tamit loi bi yow yaa koy argumenté na nga ko bëgg argumenté pour jaxase parce que su loi bi waxee fële ne mandat bi kenn mënu ko yokk kenn mënu ko yokk mu leer naññ. ñoom dañ lay wax sax dañ naan l'esprit et la lettre. waaw la ñuy lii rek la la nekk ci gannaaw loo xam ne dafa dafa dafa nëbbatu. waaw mais li nga xam ne nii moom boo ko liiree ñu dégg ko. mu leer nañ yow iya nga bëgg koo réfléchir leneen bon donc ça veut dire que buñ bàyyee Sénégal parce que man damay président yi comme président Macky Sall li muy def mais xamul lu mu ko mën a jural ëllëg parce que aujourd'hui imaginel ak ku ko mën a remplace na nekk doomam sax mais bu bëggee am peuple bi fu mu jaar dérive yi mu def mm, mu traité ko parce que fii ay ay président président bi xëy xëy déporté baayam mi ngi fi am na ay président yuñ yuñ tuum euh, yoo xam ne nii ay doomi président yoo xam ne ne tuumal na ñoo rey seen président je pense que nit ki dafa ci situation lu jup lu tegu ci yoon boo ko defee daf lay daf lay daf lay protéger daf lay protéger euh, kenn fekk na Seydina Omar mu nekk ci taatu garab gi di nelaw ñu ne ñu ana amirul muminina ñu ne ko ma nga neeti garab mu daal dikk fekk ne ko yow de da nga li tax nga mën nelaw fii mooy da ba dara amoo looy tiit voilà mais nit ki tamit soo gisee euh, yenn yi nga di ko tiit wala ngay ragal euh, je pense que loo ci gën a nekk rek yaa ngi gën di dugal sa bopp voilà te loolu.